Serigne Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Ndeye moro Serigne Gueye nga nekk njiitu association des handicapés diplômés du Sénégal nekk euh, membre FRAPP actuellement lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ne handicapés diplômés yi ñu ngi koy jànkonteel fii ci Sénégal. waaw Ndeye moro man la Serigne Gueye jiite benn kuréel bu ñuy wax les handicapés diplômés maanaam handicapés jàng am ay lijaasa nekk aussi itam membre ci mouvement FRAPP France Dégage. Euh, difficulté yi nag mën naa ne cin luy bax la amul benn roq buy sedd et ça ne date pas aujourd'hui tey boo ñëwee ci njàng mi handicapé bi pour mu jàng problème lay doon bu jàngee ba pare aussi pour mu liggéey problème la bu feebaree pour mu faju aussi problème la accessibilité bi aussi problème la donc li ma la limal li lépp nag boo ko génnee ci dundu doomu adama yaakaar naa dara desatu ci donc loolu moo tax ñu jug takku di xeexal way laago yi yemuñu rek ci handicapé diplômé yi mais dañuy xeexal bépp woy waylaago parce que nag waylaago bi dafa nekk doomu adama comme ñëpp dafa am dund bu ñoŋ comme kon tey jii yéen lan ngeen di xaar ci autorité yu bees yi parce que yéen a ngi doon ñaxtu mbir yooyu ci nguuru ka Macky ba léegi mi ngi fi euh, kon euh, mu am nguur gu bees lan ngeen di xaar autorité yi euh, ci autorité yu bees yi par rapport ak situation bi ngeen di traversé. waaw autorité moom li ñuy xaar ci ñoom du dara lu am ci ñoom yaakaar. euh, parce que boo xoolee le président Diomaye moom mooy le seul candidat boo xamante si nii bi muy dem élection amoon na programme pour handicapé yi donc loolu moo taxoon ñu ànd ñun ak suñ ay famille ak suñ ay jegeñaale voté la coalition Bassirou Diomaye Ñaaxaar Faye yàlla may na ko ndam li ñu ki li ñuy xaar ci moom nag du lenn lu dul li ñu doon xaar ci yeneen président yi rek la ñuy xaar ci moom mooy ñu appliquer ñu suñu loi bi parce que dafa am benn boo xamante si nii ñu ngi ko voté woon depuis 2010 par l' assemblée nationale et le mook parité bi ñoom lañ voté mais gis nañu euh, parité bi ñu ngi koy appliqué à cent pour cent mais loi bi pour handicapé yi kenn appliqué wu ko parce que ñoom dañoo jàpp ne way laago bi mënu leen a jariñ dara donc loolu moo tax nag ñu am yaakaar ci la coalition Diomaye président que bu accéder au pouvoir donte nag am na ay priorité mais buñ génnee ci priorité yi ñu ngi koy ñaan mu taxaw ci problème mu handicapé yi ñu am ay conseillers ci ministère yëpp am une autorité ñenn ci handicapé yi aussi man am ay compétence aussi ñu dugal leen ci nomination yi surtout ñi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi Pastef voilà ah, nag am handicap da ngeen ay poste de nomination euh, waaw am na am na ay handicapé yoo xamante ni euh, ñi ngi Pastef euh, am nañ njàng am nañ ay diplome te ba xeex jotee xeex na ñooñu war nañu mën a am ay war nañu mën a ah kon xanaa dañ doon xeex pour am poste bokk non non du xeex pour am poste mais tey waylaago bi am na droit bokk ci parti politique comme ñëpp mais bu fekkee waylaago bi am na njàng am compétence man a nekk fenn nañ ko jox j'ai pas dit que dañ doon xeex pour am poste déedéet parce que bi ñuy xeex c'était juste que dañu doon xeex c'est parce que dañoo bëggoon un Sénégal meilleur un Sénégal meilleur nag yaakaaruñ ko woon ci kenn ku dul le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko bu joxoñee benn candidat ñun ñëpp dañoo dañoo mobiliser wu dem voter candidat léegi euh, Serigne Gueye ngeen ne da ngeen a bëgg ñu dugal leen ci fonction publique est-ce que aussi handicapé diplômé yëpp mën nañu dugg ci fonction publique yow tam. waaw xam nga fonction publique moom eh, du lu ñuy ñaan lu ñu moom la euh, euh, texte yi daf ne recrutement bu nekk téeméer bu nekk fukk yi ak juróom dañ ko war a jël ci waylaago bi te te ñoom respecté wuñ sax zéro cinquante pour cent ci recrutement yooyu mm-hmm. handicapé yi jàng am ay lijaasa am am formation professionnelle matuñu sax téeméer boo jël fukk ak juróom. Hmm. kon donc bu fekkoon ne état bi fi nekkoon amoon na volonté kon réglé woon na problème bi bu yàgg. Euh, kon seen loi d'orientation sociale bi ba léegi amul benn application. loi bi ba léegi kenn non seulement amul ay décret d'application mais yi ci am ay décret d'application que néew sax kenn appliqué wu ko. et buñ ko appliqué woon nag handicapé bi buur lay doon au Sénégal parce que su boobaa handicapé bi dina jàng ci condition yu baax bu jàngee pare dina liggéey ñi am formation professionnelle aussi te soxla financement dañ leen di financer ñi nga xamante si nii feebar nañ bëgg a faju dañuy faju transport bi aussi day nekk lu gratuit ci ñun. Mhm. parce que handicapé yi jàngul ñoo ëpp fuuf handicapé yi jàng tey am na handicapé yoo xamante si nii tey bëgg sax dugg fonction publique mais pour ñu am pour pour demal seen bopp problème la. est-ce que euh, vous trouvez ça normal c'est pas mm. normal. Mm. ngir xeex ñàkkum xëy bi dañu gis ni régime bu bees bi dafa mise trop euh, si wàllum agriculture xool nu muy inciter jeunes yi ñu dellu si tool yi dem bàyyi naka nga gisee initiative bi ñu lancé. waa initiative boobu dañ koy rafetlu et président aussi loolu rek la war a def parce que boo xoolee li ëpp ci ñu ko fal ay ndaw lañ te l'agriculture dafa nekk secteur boo xam ne si nii moom rek moom mën a dafa bokk ci yi xam ne si mën naa tax Sénégal développé wu. et parmi nous am na ay personnes en situation de handicap yoo xamante ne nii tey ñu ngi ci ñu ngi ci mbay mi ñu ngi ci mbay mi donc mais ñenn ñi aussi dañoo am ay difficultés pour accéder à des financements. est-ce que kon yéen pare ngeen pour euh, wuy ji appel au président Diomaye si mbir moomu. waaw xam nga président nag ñun dañ ko wuy bu yàgg <laughs> dañ ko wuy bu yàgg avant muy nekk président lañ ko wuy donc kon bu woote waatee ñun euh, duñu duñu def lu rafetlu ko ba pare jiitu ci. waaw jiitu ci di wax nag euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne ko am na ay ay ay personnes en situation de handicap yoo xam ne si nii ñu ngi ci mbay mi ñooñ ñooñu dañu la war a jàppale teg leen loxo donc di wax ministre bi aussi comme ni mu ko defee ak ñenn ñi na dem aussi ci handicapé yooyu seeti leen parce que tam handicapé yooyu ay jàmbaar lañ ay ndaanaan lañ malgré leur handicap ñi ngi ñi ngi ñi ngi faayit pour pour pour génn ci. Euh, euh, euh, comment dirais-je Serigne dañuy wax ne aussi am na kuréel yu fi nekkoon di financé ndaw yi yow kuréel yooyu da nga d'accord nguur gu bees gi dindi ko fii wala mu gën leen a dooleel comme ay ANPEJ ay DER aussi naka nga gisee kuréel yooyu. waaw kuréel yooyu baax na naam mais ni mu doon doxe moo baaxul donc kuréel yooyu man damay ñaan président mu maintenir ko mais mu wut ay nit yu jub yu am xam-xam ñu teg leen fa. parce que nag ay ay kuréel la yoo xam ne nii wax dëgg yàlla. Euh, ñu laaj la si beneen ponk bu am solo phénomène émigration irrégulière bi ba léegi mi ngi continuer euh, ndaw yi ñu ngi jël gaal yi euh, di dem naka nga gisee mbir mi ñu si bëri di faatu aussi. waaw dañ koy dañ koy naqarlu dañ koy naqarlu di wax ndaw ñi aussi loolu du solution au contraire fuite de responsabilité la maanaam da ngay daw sa ay responsabilité parce que boo jëlee gaal dem ci géej gi des ci mais yow di di nga noppalu mais sa say famille donc loolu solution nañu rester ci seen réew laaj fi seen ak ak seen yelleef bu tukki mënul ñàkk boo koy def nga jël bool nga dem. Euh, beneen laaj aussi bu am solo actuellement euh, naka la nguur gi waxee ne dafay xeex ñàkkum xëy mais aussi di déguerpir ay ay commerçants un peu partout ci marché yi à Dakar naka nga gisee mbir mi. waaw Ndeye Moreau non du question que nag dañ siy jëlee ay com dañuy déguerpir dafa am ñoo xamante ne dañ di woo ay marchands ambulants. daf ci am ñoom ni dañ doon occuper bay occuper la voie publique et loolu c'est pas du tout normal loolu du du lu ñuy nangu du question que nag damay wut dama bëgg am xëy d'accord ñëpp dañu war a am xëy mais tam aussi bu fekkee ne da ngay da ngay bëgg am xëy bay lor ñeneen ñi aussi day nekk beneen problème parce que ñun handicapés yi parfois da ngay da ngay jaar kolobaan donc da nga yor sa pousse pour nga jàll problème lay doon parce que dañoo lal ba lal ci kaw tali bi trottoir bi yow dañu ko occupé carrément donc nag yow nga bëgg yow da nga bëgg liggéey man bëgg ma xañ man sama dem ak sama dikk donc loolu tam aussi du du warul mën a nekk mm-hmm. waaye itam aussi d'accord naa itam aussi eh, ñu waxtaan ak ñoom wutal leen fu ñu dem waaw laa moom d'accord naa mais li ma d'accord kay mooy xëy benn tur rek ñëw ne da ngeen fiy jóge déedéet d'accord ma tam nga ne man dama bokk ci ñi xeex pour président Ousmane Sonko euh, euh, accéder au pouvoir damay lal fu ma neex déedéet. loolu je suis pas d' bu fekkee sax danga nga bëgg la si du président de la république donc da war a defar da nga war a defar. mais hmm. waruloo yàq. Euh, ma bàyyi la peut am na appel boo bëgg a lancé euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay waaw di wax rek euh, son excellence monsieur le président que handicapé yi li ñuy laaj daf leen di permettre ñu mën a jot seen àq ak seen yeleef te bu ñu jotee seen àq ak seen yeleef danañ mën a xeer seen bopp di wàcceel seen bopp donc ba tax na ñu ngi sàkku ci moom mu appliquer ñu loi bi à la lettre parce que loi bi rek moo mën a régler définitivement le problème des handicapés pour ne pas dire les handicapés diplômés di ci dolli nag euh, di ko wax ne au niveau des ministères nañ fa am ay conseillers yoo xam ne dañuy nekk ay personnes en situation de handicap yenn handicapés yi aussi nga xam ne mën nañoo euh, occuper ay fonctions. ci àndoon ak ñoom di xeex buñ mënee dugg fenn la leen fa dugal waaw. voilà merci beaucoup euh, Serigne Gueye ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Euh, ñu ngi lay ñu ngi ñoo la ñoo la ñoo la war parce que permettre nga ñu ko président mën ñu dégg. voilà euh, Serigne ñuy fàttali ni yow yaa jiite association des handicapés diplômés du Sénégal nekk ci membre. Euh, nekk membre mouvement FRAPP jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci beaucoup Ndeye Moreau